seen application Wannel TV agsi na ci Google Play mën ngeen ko télécharger légui légui. décision bi conséquence constitutionnel génne alxames bi passé bu ñu ko bëggee jàngat ci lu gatt ci kàddu yu gatt mëna naa wax ne dafa yor melni ko yor gatto xaaj ko Né opposition bi da ngeen attaqué décret président bi ak loi bi assemblée nationale voté won.

mandat la ko jox ne ko dama nga waxtaan yaag say service administratif yi nga xam ne ñoo yor say saytu élection bi ak ñooyu mandat ah président ne bu loolu amee waa présidence ki danañ communiqué ñoom it communiqué eh, parce que conseil ne ko eh, ngeen dajale waxtaan ñi nga war a waxtaan ak service am ñu xool ñu conditions yi dajale mbir mi man nag conseil constitutionnel d'accord ma foofu parce que moom gannaaw dafa jox pouvoir dafa ci biir décision bi daf ne moom dafa am pouvoir yu yu mat sëkk jox boppam pouvoir yu mat sëkk ñëpp

nekko ko bi bu wóor parce que conseil constitutionnel ci biir décision bi tudd na 25 février 2024 tudd na 15 décembre 2024 mais 2 avril 2024 pourquoi conseil constitutionnel tudd ko ci décision bi bi mu jëlee ci considération bi dafa waroon a jël alaaj dafa waroon a jël benn conséquence firme ferme ko ba pare ñëwaat ci biir dispositif fi ñu def les motifs tiir defaat ko fa tiirawaat foofu conséquence mu leer nañ ne ko élection yi premier tour yi ak deuxième tour yi ak ki lay remplacer fexe leen ba bu mu date bi nañ ci def élection yi date bi nañ ci campagne bi commencé ak loolu yëpp waaye nag loolu yëpp gën a defu ko fu mu nii li fi am mooy président de la République ñoom tontu nañ jël lettre bataaxal tontu conseil constitutionnel ne ko président présidence ne ñoom dégg nañ conseil constitutionnel li nga wax te danañ ko jëfee ils ont pris acte te danañ ko jëfee dans les meilleurs délais CEDEAO moom it jël bataaxal tamit ne nañ organiser élection yi dans les meilleurs délais conseil constitutionnel meilleurs délais présidence meilleurs délais CEDEAO meilleurs délais xam naa temps yii moom meilleurs délais moom moo xew ci loolu. dama jàpp ne problème xas na ba am fu mu toll nii problème yi comme on le dit ci ni ñu koy waxee ci tubaab un problème un problème bien posé et à moitié résolu que président yaakaar li mu soxla nii du ay attaque ak ay mooy ñu jox ay piste de réflexion ñu ko war a conseil ñu conseil ko pour ñu defee ba organiser élection yi mu dem ci jàmm ki war a falu falu ci jàmm man ci li ma jàpp mooy euh, premier piste de réflexion yi war a joxe loolu nag dafay aaju ñu ñu xalaat ñun ñëpp. premier piste de réflexion bi ma jàpp dama jàpp ne gannaaw président ootewul dialogue ñu leeral ko dialogue mooy dangay war a owaat ñëpp parce que buñ fàtte ne processus électoral bi yàquwul dafa dañ ko suspendre dafay folote dafa mel ni gaal gu ne ci biir ndox di voilà ba pare amul moteur bi fay muy wër ngelaw du ko yóbbu fu ne processus bi yàquwul dafay folote li muy folote mooy fu mu doon nii lan mooy tax mu mën a reposer mooy ñu utal ko date date boobu nag mooy incident bi. procédure dafa am incident mais procédure bi yàquwul dafa am incident incident bi mooy incident de date la date bi la ñu wut moo tax conseil constitutionnel de présidence da nga xoolaat date bi gannaaw moom ni mu conseil constitutionnel ni mu ko mu delloo affaire bi présidence léegi président de la République nag di oote concertation concertation bi nag ki ci war a jiitu mooy ñi nga xam ne ñooy candidat yi parce que élection mënul am te te waxuñ candidat bu ne élection candidat am moo tax ñu koy wax moo tax président aussi damay laajte est-ce que président tey mi mbir mi gàttee nii distance bi gàtt ko période bi gàtt ko temps bi manqué wul est-ce que président bi waxtaan ak euh, euh, kii euh, candidat yi est-ce que présidence am na droit mu forcer benn candidat ne ko dañuy wàññi délai man délai bi ñu war def campagne électorale parce que ñoo xam ne ne am boo demee ci article cent vingt neuf du code électoral daf ne la campagne électorale mi ngi du président de la mi ngi war a ubbi bu bu élection yi desee maanaam jour bi ñu war a voté bu desee ñaar fukki fan ak benn lay campagne bi nekk. ñu noppalu samedi bërsé ba ñu mu jeex samedi su guddi bërsé dim ñu eh, noppalu mu jeex aljuma bërsé samedi ñu noppalu dimanche ñëpp dem vote ji est ce que président mën naa violer loi bi pour forcer candidat na ko da ngay wàññi sa durée kii bi campagne bi nga war a campagne je ne le pense pas parce que su ko defee dafa violer loi bi parce que loi bi moo may sañ-sañ candidat bu nekk nga dem campagne parce que li tax ñu def 21 jours campagne bi defuñ ko une semaine defuñ ko 10 jours c' est parce que dañoo bëgg candidat yi nga xam ne kenn xamu leen wala nit ñi miinu seeni i tur wala bi ràññeewu leen ñu mën a wër Sénégal département yi 14 régions yëpp dem fa mën a présente seen spécimen seen i photo yooyu nit ñi mën na ràññee ñu xam leen mais boo jëlee tey yenn candidat yu mel ne ay Idrissa Seck ak ay xalifa Sall ak ay ay ay mala mun naa wax keneen ak keneen ay bu la neexee wala ay euh, euh, candidat peut-être ay Serigne Mboup ñoo ñëpp rek ñu xam nañ leen am na ñi ñu min nañ leen mais am na candidat yoo xam ne tey boo waroon Sénégalais leen laaj candidat bi kan ak kan la ñu bëri xamuñ leen donc est-ce que président ci kaw loolu am na droit wañ loxo candidat yi ne leen da ngeen wàññi seen durée mandat eh, durée élection bi ngeen war a def durée campagne électorale bi je ne le pense pas deuxièmement su loolu wéyee dina ma bu nekkee loolu jafe wu dana am par exemple bu mu nekkee mënul forcer ben candidat mu wàññi durée bi mu wara def ci campagne électorale bi la fay jafe parce que mënul forcer ben candidat mu def ko ñaareel ba kaaw war ni je pense que ñi ñi wax bi waxaat ci je pense que mom lay ooy la candidate de trop la dame madame Rose Wardini ñu xam ne Rose Wardini sa candidature da dafay euh, violer l'article 28 de la constitution parce que article 28 de la constitution ñoom nee nañ dafa wax ne képp ku bëgg ne nekk candidat président de la République da war a nekk nationalité sénégalaise dong rek képp amul beneen nationalité bu war a jël képp ku nekk situation bu mel ni moom aussi da ngaa war a waroo bokk candidat boo nekk suñu candidat ci président de la République yoon dala ko dàq donc moom laa wax ne la candidate de madame Rose Wardini dañ ko a seetaat dafa war a génn ci liste bi te conseil xam nañ loolu. ñoo ma gën a xam li may wax. ñëpp xam nañ il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction donc euh, sous ce rapport là mën nañu wax ne il a été inculpé pour des faits qui sont en relation avec les avec les élections moom ñu ngi ko toppee euh, infraction bi ñu wax ay parjure ak xeet yooyu. kon je pense que le fait que juge bi inculpé ko ba pare place ko sous contrôle judiciaire mooy infraction yi ñu koy toppee kon c'est-à-dire mën nañu wax ne infraction yu yu xel mën a nangu la parce que bu ñu ko inculpé woon ñu ko place sous contrôle judiciaire. bon su loolu amee nag léegi la mooy piste de solution yi fi am mooy bi ci njëkk moy est-ce que bo xolé président de la République conseil constitutionnel nek fa rek di àtte di rendre ay décisions parfois aussi dafa rôle consultatif consultatif moy di xelal nguur gi di xelal manam président de la République président man nako laaj bala jël yenn décision yi dem jébal benen bataxal conseil constitutionnel président def na fa ay yone bo xolé 2016 bi mu demandé dafa bëgg wañi mandat bi jëlé ko juróom-ñaari at yóbbu ko juróomi dafa laaj conseil constitutionnel conseil xelal ko na ko ko wàññi mandat bi c'est un mandat qui est conféré de par la souveraineté populaire ñi ñé la ko jox yóbbu jox ko sa bokk ak yeneen a yeneen soo xoolee tamit am na tamit beneen décision boo xam ne président euh, bi ñuy def élection législative yi ndax élection municipale en 2016 2017 président demoon aussi laaj euh, laaj euh, mooy bi nit ñi amoon problème pour jëli seen carte électeur yi mu yéex a ba conseil président de la République dafa jël bataaxal laaj avis conseil constitutionnel boo xoolee conseil constitutionnel rendre na ko décision boo xoolee mi ngi nekk benn jurisprudence décision du conseil constitutionnel euh, numéro 8 du 26 juillet 2017. conseil constitutionnel dafa tontu président ne ko ñi nga xam ne mënuñ jot seen carte électeur yi mën nañ ut seen permis de conduire wala seen passeport wala bépp kayit boo xam ne mën na leen ci ràññee wala ñu identifier ñu voté ko ñu dem présenté ko ci ci bureau de vote bi pour voter loolu lañ ko réglé woon kon damay wax moment bi puisque c' est un moment très important et crucial na président de la République jël avis jël kayit balaa jël décret bi parce que décret bi su ko jëlee te laalu conseil laajul conseil constitutionnel opposition mën nañ ko attaqué waat tout comme aussi ñi nga xamante ne bii mooy ñooy candidat yi bu leen arrangé mën euh, te bu leen fàtte conseil constitutionnel créé na benn revirement jurisprudence bu bees ci décision bi nee na bépp décret bu président jëlati boo xam ne dafay laal ci élection nationale maanaam décret président jëlati xam nga décret yi cour suprême moo leen daan atte parce que c'est des actes lañ ko jàppee unilatéral ou voilà quoi légui conseil constitutionnel ci décision bi nee na décret bo xam président jël nako ko mu laal ci élection nationale mo xam directement ci élection nationale directement ci élection présidentielle wala élection législative mom mun na tëb atte ko loolu mo tax mu dem décisir ci décret bi cour suprême ñoo atté décision bi euh, décret bi. légui nak li fi am moy président na laaj avis conseil constitutionnel su ko laajee avis ci mbiru ka war ni ak ci délai élection yi bala jël décret bi mu mun bind conseil constitutionnel laaj ko nako ko kaaw ka war ni dama bëgg nga régler ko ñu régler ko nga wax loo ci xalaat parce que dafay violer article 28 de la constitution ba tey tamit candidat diggante bi ñu war a candidat yi bëri peut-être nangu ñoo wàññi seen délai campagne électorale bi leen yoon may mi article 129 du code électoral mi 21 jours am na ñoo xam ne dañ ko nanguwul suñ ko nanguwul nag mënoo leen koo xañ parce que yoon na leen ko jox les conséquences dana ci àddu bu yoba conseil kon léegi nag nga ne ko mu la ak date bi nga xamanteni bi ci la wara a def premier tour yi ak deuxième tour yi ak le contentieux parce que bu len faté élection day ànd contentieux bu élection yi paré aussi mun nam ay contentieux post électoral yooyu nam donc je pense que man la meilleure solution pour le président de la République c'est avant mi jël décret di di di le collège électoral di jàpp datu élection na demander conseil constitutionnel mo jox ko mu jox ko avis ci kaawu euh, madame Wardini ak ci la date qui fixe les élections présidentielles Votre application Wallet TV disponible sur Google Play. Téléchargez maintenant.